salaamaaleykum gars yi waaw maa ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp booñaa la ñu ngi nuyu monde lamba ah. waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face booñaa tafatin incha di am la 5 juin incha allah képp kuy dund lamb ñu ngi lay booy ñaar tafatin seen fees su fees le 5 juin cappaacoo yi nag bu leen des ginnaaw waaw bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah suñu boom defal ñun tam gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg promoteur bu mag bi Pape Galis ak Leewtoo TV ah gannaaw ba mu àndeek équipe bu Diourbel bi fële ca drapeau du chef de l'État moom Gandia jël drapo du chef de l'État ngeen gis accueil bu mag boobu ko waa dëkkam defal di biddanti fii nag la juddoo yaroo fi màgge fii fii la jànge làmb ngeen gis waa dëkk bi yëpp daal di génn xale yi génn nañu mag ñi génn nañu wante notable dëkk bi ñëpp daal di génn teeru xale bi comme ni ñuy teeroo buur Gandia Fama yàggul dugg ci làmb wante ku mët a bàyyi xel la ci làmb ndax mi ngi ci yoon biddanti nag mi ngi bokk ci Île salom nekk ci département bu Foundiougne di dëkk ba nga xamante ne bii ay ñoomin ka ñoo fa dëkk ak ay soose lu ëpp treize mille habitants di yeewoo ci dëkk bii nga xamante ne bii mooy biddanti di leen fàttali Gandia Fama bokkoon ci quatre-vingt-six kilos yi ñëwoon fii ci drapeau du chef de l'État wante li ñu mën a wax mooy naataangoom yi mu dajal ñëpp daf leen a daan kenn rekk ko ci daan ñu naan ko Dibakor Sagne par individuel la ko daan li nga xamante ne bii mooy demi-finale Dibakor sañ moomu sax moo jël catégorie quatre-vingt-six kilos bi Gandia Fama moom moo jël troisième place par quatre-vingt-six wante bu ñu ñëwee ci par équipe nag ku nekk xam na ne région de Diourbel bi Gandia Fama bokkoon moo jël drapo di chef de l'État te Gandia faama ñii mu dajal par équipe ñëpp daf leen a gañe gis ngeen ko noonu waa dëkk bi yëpp daal di génn génn aaday dëkk bi génn cosaanu dëkk bi ngir teeru seen doom ji nga xamante ne bii mooy Gandia faama ñu gis ne loolu tamit dugg na ko ba champion ngi noonu di jooy ndax accueil bu mag bi nga xamante ne bii waa dëkkam defal nañ ko ko lépp nag li ko waral mooy ndam lu rey li nga xamante ne bii jëlee na ko fële ca Kaolack ndàngaan ci drapeau di chef ba fa amoon di leen wax ne Gandia Fama nag ñu ràññee ko bu baax ci mbapat yi ba mu duggee ci làmb yàggul ni ma leen ko waxee sànk wante li mu jël ci ay nag li mu jël ci ay darapo kenn xamul ni mu toll Gandia faama nag mësul am komba arène di wax na promoteurs yi nañ ko bàyyi xel mën naa bëre am na gannaaw ndax lii rekk wone na ko waa dëkk bi yëpp génn na nekk ci gannaawam wax naa la ko li la olof njaay naan ku def lu rëy am lu rëy wante moom tamit am na mbégte ak kontantement yëkkati na ay kàddu sant waa dëkk bi gërëm waa dëkk bi wax na ci olof wax na ci soose ah. sade tiyar maro kana ko almano ko kana ko tiyar man de ndesan wa mo mes man jaro ko nani xarbe aha ko ngala ni yo almale kamɓe almale kamɓe ɓeɗeɗi sade ko ndesan almale meño ño fasal ndesan cilana hormon amin amin amin alo ah. maare almale meñin ño kanole amin amin alo maare almale champion me gola jam amin amin amin fana ɓenno ño wonko almale cete amin amin amin kote kote on fana ɓe jam alo maare ale ye kusati ko on yaa on tambinantala amin amin amin cila hormon amin amin amin fana ɓe ñaar almale me ñaar amin amin amin sayin ñing terlo biriye molje kulluhol musol cel mbeɗen ɗi ɓe funde mo kaf jeɗen ah, ni ceɓa amni ceela kuñaña hen condane bon sunda quoi ndesan ahen condane bon sunda par ce que ñin ndeningol yen betile quoi ndesan yen betile ndesan non itla ɗo ngu fanan quoi sa ite ammira ko aɗa ka foye duwala faren suudel ɓe ñaara mum kabira waaw incha allah. waaw alma ala wajja incha allah. incha allah allahu taala. ini woni ko ñu waroon saare ngon mun tewo kote wo. mo kote wo mo kote naare allahu taala incha allah rabbi. tewo fo mo kote naare allah ruwaade uh-huh. saare num uh-huh. yalla nga wuru mal mona tere naare allah taala. abe dunay saare ngon incha allah. abe kelan teldu abe kelan bir kote no na bara ala bal incha allah abe kelan saare ngon. a ah, ruwaade saare ngon dunay nyana da kala kilinda da kala fulade incha allah. incha mooy fait à boire. d'abord dans l'histoire. Moi, je voulais faire un peu de Ada de No, kondano kuala re, kondano kuala, kondano kuala. Pasal ni aja biar sampion merah saudara jan. Sampion merah saudara jan. Baru waktu nasa demo lima esporo, imalo yalon esporo munde a esporo kamandu ni banko ka a kamandu ni sare alo mare al male be ngol me lafri esporo ay inshallah salaamaaleykum gars yi waaw maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp booñaa la ñu ngi nuyu monde lamba ah. waaw di wax ne xeexoo bu mag moo am muy face à face booñaa tafaatin incha allah di am la 5 juin incha allah képp kuy dund lamb ñu ngi lay woo booñaa tafaatin seen fees su fees le 5 juin cappaacoo yi nag bu leen des ginnaaw waaw bu jeex rek jeex na ñëpp incha allah suñu boom defal ñun tam gars yi dina xum dina neex te kon bu ñu ànd ceeg bu mag bi Pape Galis ak Leewtoo TV ah